Bienvenue sur Salam Vision. la politicien la fii Pikine ñoo koy gërëm bu baax di gërëm Modou moom Touba mii koñ bi mu Touba tamit jàpp na si bis bu baax jënd café jënd ay café bëri jox ñu ak ay suukar gërëm waa Ndiadiène waa Ndiadiène kër gii ñoo ngi gërëm ñu gërëm waa koñ bi yëpp waaye ñoom tamit mention spéciale ñoo ngi gërëm bu baax a baax baax di gërëm waa daayira soxna yi waa daayira soxna yi ñi nga ñoo doon togg waa koñ bi daal ñu ngi waa koñ bi ñu ngi gërëm ñëpp ñi doon ñi bi ñi nga xam ne ñoo doon togg chaque ñoo koy togg ñu ngi leen gërëm bu baax a baax a baax di gërëm Yves Pène Yves bi suñu grand suñu lébu la jàpp nañ si bis bi xam waa koñ bi ñoo moom lii dañ def chaque année bëgg nañ. mu bëri yokk te li ñu yokk 2019 benn nag la ñu ayoon avant 2019 ba cee njëkk a def ay mbaxal lañ doon def si mbaxal lañ commencé mbaxal fuñ pàcc di ko ràcc ay di ko jël partout partout di tasal gars yi di teewlu xam nga lu wax ak ba ñu def ay couscous def ay ginaar ba sa ba sa ñu def rey nag. daaw amul woon ndax mbas bi moo taxoon amul ren ñu def ñaari nag déwén déwén bëgg nañ gëlëm bëgg nañ ay nag bëgg nañ ay xar pétard sax dinañ ko def déwén incha allah day gën a yokk ndax nag Sëñ Tuubaa amul amul amul tànk ginnaaw Sëñ Tuubaa tànk kanam la am sëñ bi mi sëñ bi loolu la mën a wax léegi bàyyi amul tànk loolu la mën a wax léegi. woon ne woon ne woon mbiri sëñ Tuubaa da ngay da ngay da ngay da ngay meloon rek mais yow du nekk yaay def sëñ bi si boppam mooy dafa baaxoon waaw. ñoo ngi gërëm tamit Aliou Touré Aliou Touré matt yi matt yi ñu toogee yëpp Aliou Touré moo ñu ko jox waaw njëgu fukki junni matt bu bëri Aliou Touré jox ñu ko barkeeloo ko si bis bi ñoo ngi gërëm ñi si jàpp ñëpp Mass Faye. di jaay suñu suñu lépp la moom mii mi ngi nii def de moom daanaka fayuñu ko xam nga ne solo bu mel nii mu ñëw tegal ñu ko fii ba pare toog jàpp si bu baax jàppale la ñoom ñoom ñoo ñoom fii ay ceeb 24 décembre ñoom si ne quoi ñoom njëkk di def ay ceeb année 24 décembre ñu doon doon def ñoo fi ñu ngi def ay cant cant yu mag ñoom ñoo tax ñu xam ñu xam yoonu ñoom ñii ñoom Mass Faye ñii. ñoo ngi sant waa koñ bi yëpp di ñaanal maire yi jànk jeeg yeeg ñi dëkk ci koñ bi ñëpp suñu morom ñoo ngi sant ñëpp ah. dafa joor waaw dafa ñoo koy sotti jàpp nañu bis bi te ñu seetlu ñëpp daal ñu jàpp nañu bi ñëpp di baal ñu suñu waa ji jàpp la wekkat la sëñ bi na ko ñaanal bu baax mu mel ni Wally Seck na ko ñaanal ñaanal ñu ñun loolu ay barkeelu ci sëriñ bi kon ku sopp sëriñ bi la waaye daal xool ko muy kon sax damaa amoon yéene jox gaar yi ci bu noppee pour ñu andi lu baax bu ñu xamul muy noonu ndax ñoo woote waaye daa am ci lu ñu fi teewal ñu seen jëmm ji baa ngi nii nga di tudd di wax nga lay déglu Mbacke Balla loolu rëy na ci ñoom kon sant nañu ñëpp gërëm ñëpp Mbacke di wax dëgg laa doon sax mu mel ni sant nañu ñëpp nit ñi wax dëgg yi ñuy sant waa Koungheul Ndiaye bu baax Mbacké fii mooy wàllu baar ji nga ñaanal leen baax na kon nag air plus nangam parce que Touba ci taw yi bu ko defee di sant baal laaj dara bay saa di bay may ma ma ni taalibe yi ak Baye Diagne Baye Diagne sëñ Saali moom di ko ñaanal sa borom def ko baax di ñaanal bu yàlla yëpp di sant waa Lansar waa ay Momar Trois soxna laa sa ngi ci biir Diagne kon bu ko defee dañuy bàggal rek ndax di siyaare ko di baax baax Mbacke kenn yàlla ko di siyaare Baba Ndiaye mu génn baax bi léegi di taata ko leen sama jëmm ji moo tax mu teew fii muy siyaare ko comme dana saa borom yokk ko kon bu ko defee lii barkeelul rek وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دون سقط عند سرسارا Bienvenue sur Salam Vision.